na عني نفى إبليس في بحر ما ينبع DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عني نفى إبليس في بحر ما ينبع jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou suñu sang Mbacke Daaru Ndiaye yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér mbokk yi safoo DS TV bu Touba ñu ngi fi tey Mbacke Kajoor ci màggalu Serigne Bara mu Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaw ñu bëgg xam kan mooy Serigne Mouhamadou Lamine Bara tey ñu ngi fii ci ngi Bamba ñuy xamal ñu ni bari bi ngi taxaw fii la Cheikh Ibrahima Fall daje woon ak Serigne Touba Serigne Cheikh Ndigal Fall nekk fi ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ak njagootu sëñ Baara gi yëpp ñi màggal bis bu sell nag tey ñëw fii ngir bëgg a xam lan moo a liggéey bi ak lan moo war a xam mbaar mi ak lan moo sawaw yëf yi xool ñi nga xam te ne gan ñoo fi ñëw ngir liggéey si ngir jëriñu si ngir siyaar si ngir tataan si liggéey Serigne Touba bu sell bi nga xamante ne dafa yaatu sawan baawan fépp kon nag yéen ñi safoo des TV yi topp lañ ngir dugg ci biir ñu jëfante ak yéen incha allah. waaw ñu ngi fay ab nuyoo. ñoo fii barab bi si Ngiss Bamba fekk la fi. Mm-hmm. waaw waaw lan moo tax doon say TV waaw fii de histoire la. waaw histoire Cheikhul ak maam seex Ibrahima Fall. wax na ne fii la joxe ak njébbaloo. Oh, kon loolu boo gisee nit ñi bari fi lool. loolu moo ko waral muy pakk boo xam ne pàkk barkeelu la pàkk boo xam ne tamit pàkk bu am solo la pàkk boo xam ne fu waay mën nekk mhm. war nga koo bàyyi xel te it kenn ku nekk saw njaq war na caa mën a dem mhm. parce que ah, boo gisee ni leen wolof Njaay doo wax naan fu fu ñëpp daw jëm mhm. dawal ànd ak ñoom rek waaw parce que Serigne Touba mooy koo xam ne nii mooy lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca kon nag fii moom barab la boo xam ne macha allah ñu ngi eh, wax suñ bokk taalibe ak suñ bokk jullit bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaw nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaw maa ngi soññ sama bopp rek di ci soññ ñëpp waaw jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax a baax yal na yàlla suñ borom defal tawféex ak taysiir parce que lii tamit yéen ñi tamit ñu ngi leen ñaanal bu baax ngeen yàgg fi te wér ñaanal DSTV Touba ah DSTV Touba waaw ak sa yàlla nag ca rek ca rek Touba moom ca lu ko tudd Baye Samb ci kanam rek. incha allah taala jërëjëf papa jërëjëf macha allah. ñu lay ziar bu baax. ñu delloo ziar. tur bi ak foo jógee. maa ngi jógee Dakar tudd Nogoy Samb. Nogoy Samb. da ngaa ziar si woon. waaw ah, damaa ziar si woon. ah lan nga ziar si woon. maa ngi soog a ñëw fii nii waaye sant Serigne Touba rek. waaw ah, yaa ngi soog a ñëw Mbacke Diop. maa ngi soog a ñëw. bi nga ñëwee Mbacke Diop su Mbacke Diop lan nga yëg ci Mbacke Diop. lii li ma yëg moom kéemaan la. Ah. waaw sant naa bu baax sant bu baax. sant nga bu baax a baax. mais wax nañ la fii diggante fii lan moo fi xew. Iwa. fii lan moo fi xew. Iwa maa ngi fi soog a ñëw barabu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw. Ah, wax la fii la Cheikh si doon gisante woon. ah, ah ko ñaan nga bu baax a ah, naa bu baax yaa na sëriñ bi nangu. ah sëriñ bi nangu ñaanaa leen ñëpp. fasaale bu Touba. DSTV ah. ci kanam rek. Ah. waaw waxal DSTV bu Touba. DSTV bu Touba maa ngi leen di ñaanal ca kanam. Ah. waaw jërëjëf incha allah yaay booy. bisimilah kon ñu taxaw ak jëriñ li nga xamante ni jàngatu xasida la ñu jox ko mu yëkkati ñooy xasida loolu bu ko defee ñaar jublu ci waxtaanu euh, Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba. barke Borom Touba barke Borom Touba. لله خلف وتأمر مؤمنا ومسلما ومحسنا ومؤمنا لله خلف وتأمر مؤمنا ومسلما ومعزنا ومدمنا هل يمن ببقاء وزار وغاد لي كتاب معزار لوجهك الكريم زعزع القدر إلى زوايا والعين يعدر لا دعوني ولا أدناس وليس يلغى جاد الخناس كتاب ذي الجلال والإكرام خالتني وغاد للمرام مدى لأغلو حنان غن خيره وكان لي هب بآل خيره عن الغضب والضلال ردا xali min bazitil alali macha allah sang bi ñu ngi lay ziar bu baax macha allah ci neex yooyu am solo yooyu nga yëkkati ne mënut a ñàkk ñu tuddee Cheikh Ibrahima Fall la ngi tudd Serigne Touba fu ñu tuddee Serigne tudd Cheikh Ibrahima Fall moo waral seen ànd fii ñu taxaw bërëb bi ñu taxaw sang bi bu ñu bëggoon a xam di bërëb bi lan moo ko sabab ak lan moo ko waral waaw ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel Des TV di ci am mbégte bu baax a baax nag waa béréb bi wax nañ ne maanaam Mbacke ci boppam fa la bi sase li nga xam ne mooy yoonu murid te bés la itam boo xam ne nee na sëñ Baara Mbacke ci boppam moo sas li nga xam ne mooy màggal gi bes bi itam nekk bés bu mag bés boo xam ne kuy murit war ko fonk barab bi itam wax nañ ne gigis gii fii la nekkoon te fii la sëñ bi daan wéetalee suñu borom subhanahu wa taala ci ay anam yu xam ne euh, kuy murit rek war nga ko bàyyi xel bu baax a baax ndax sëñ bi moom ku ne xam na ne ci wéetal borom la rek boromam rek lay wéetal foo mu mënti nekk. waaye bërëb bi nii sëñ bi da ko beraloon loxo ci loolu moo tax fii jar na fonk bu baax a baax ñoo ngi nuyu bu baax nag waa DSTV TV yëpp ak ñi nga xam ñu ngi leen di xel saa su nekk. waaw ñu gis mbokk yëpp daw jóg si fii te siyaar fi ñu gis ni fii Mbàkke Kajoor Sëriñ Bara ma sa Touba. tey ñi màgg fi Mbàkke Kajoor mbokk yëpp ñëw di siyaar si fii ban jafe-jafe am ñu gis ni ñi wéeru ci garab yi di ci bu suuf si ñii di jëm ca ga maam gën yëg ca xemam te am ak murid yi bëgg-bëgg lañ am ba ki ñuy màggal si di siyaar si ma nga Touba ñi ñëw fi am cofeel gi gën yëg nga yaakaar ne moom la murid yi am ba tax ñu mën a def siyaar bi noonu waaw sëñ Bara moo toll noonu sëriñ Baara ci boppam moom na suñu borom may maqamu bu toll noonu sëñ Baara ma ngi tëdd Touba waaye sëñ Baara nag nekkoon na fii nii te murid yi itam dañoo xër xam nga dañuy wax naan bëgg yëg moo koy fay. sëñ Baara dañ ko bëgg mu yëg nu moo waral li nga gis. macha allah kon yooyu kaddu yi nga xamante ni jëriñu doon na ko sànni ci diggante Cheikh Rafal ak Serigne Touba ak Serigne Baara mi nga xamante ni tey moo waral màggal gi di Mbàkke Kajoor mbokk yëpp taalibe yëpp sopp yëpp am di jàmm yi ñëpp ñëw fii di màggal si di topp xemem teefu seen sëriñ ba si xam la men baaram sëriñ Touba loolu mooy mbégte mbégte murid yi la kon ñoo ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñaan sama sëriñ sama xarit sëriñ Khadim Mbacké ibnu sëriñ Moussa loolu te ànd ak wér di ñaan la baax sëriñ Fallou mu sëriñ mu sëriñ Moussa Yène yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér kon mbokk yi ñu ko daan baax suñ mbokk daan ko doxal te kontaan nañ suñ mbokk yi def yàlla jaarama si Ibra Faal jaarama si Ibra Faal abu rijaalu lan ko yoowe fa góor ña jëm foofa la xeefaal sikuru laay bu jibee xel yëpp dem jëbi faal jëbi faal ak jaay cër ga leen la jaay lamp maam seen na bu njaay Seex Ibra Faal lay aboori jaar yaay booy ñu ngi leen nuyu di la ziar delloo nañu ziar ah ba yaa ngi si jàmm baax si jàmm baax alhamdulilah tur bi ak foo jógee man day Xadi laa tudd jógee ah, Dakar jógee Dakar waaw da ngaa màggal soon Mbàkke Kajoor waaw damaa màggal soon Mbàkke Kajoor ah. waaw lan nga yëg ci Mbàkke Kajoor bi nga ñëwee ah neex rek neex rek man gis bi laa dal fii mm-hmm. waaw si kër Sëñ Babacar Mbow fa laa dal mm-hmm. waaw màggal gi moom macha te xam naa luñ fi ñaan rek dén déwén dinañ ko gis incha allah lan nga gis bi ba nga ñëwee fii xam nga saab la xew fii waaw xam naa ko baabu doole ma dugal si télé bi rek <laughs> jërëjëf jërëjëf xaw ma ko de lan moo la fi indi kon ah dama gis nit ñi dafi ñëw rek ma ñëw fi nga ñëw waaw nah, mhm. bari nga ñaanal rek waaw inshallah nah, waaw machallah no tudd soxna <laughs> ami la sama ami jigéen hmm. ah ñu ñu ñu di magal uh-huh. xana ñu sellal rek dox señ bi wacc wayam xam lu ñu indi fi mhm. dox ko ba mar rek lu ñibé hmm. mhm. loolu nga soñu